salaamaaleykum maa ngi nuyu di ziar àdduna wërngal këpp di nuyu Sénégal cat ba cat ñëpp ñu may seetaan di sàkku jàmm di leen ko ñaanal di nuyu sama waa site parcelle 1 vingt 26 particulièrement Fadia bi ma dëkk golf cité Aline Sow Nations Unies Cambérène 2 xam nga maa ngi leen di nuyu di leen wax ne man la artiste rappeur bi woo tampi magum bërëb waaw Bakk dafa nekk loo xamante ni bii man dama nekk artiste boo xamante ni bii à chaque fois su may def damay bëgg def lu ak ak bi quoi mooy bëgg di def à chaque fois muy sénégalais moo tax ma ma ma ma jël suñu culture def ko def euh, créé ci benn son bu tudd bàkk son la boo xamante ni bii ku ko dégg di nga di nga gis ne carrément lii ñun ñoo ko moom quoi bàkk nag moo ngi bu dafa nekk loo xam ne boo boo nee bàkk rek si dudu góor yàlla day jug quoi bàkk mooy nga wax yow sa ni nga mel wane li nga mel xam nga loolu daf lay yokk jom quoi daf lay yokk tamit fit ci lépp looy def quoi maa ngi ciy développé euh, euh, lan moo tax gars yi di complexé di génne carrément ñun li ñu am xam nga parce que damay faral di wax ne gars yi dañuy rêvé doon doon kaana yi te gars yi gëmuñu ñu quoi dañuy rêvé di nekk tubaab te tubaab yi gëmuñu ñu quoi kon il est temps que gars yi nekk ay sénégalais yi ñu doon quoi parce que xam nga loolu moo ñu mën a jox li li ñu bëgg quoi. waaw man nag musique dama yàgg am passion ci ci musique xam nga di ko topp ci kaw loolu ma nekkoon benn isjo bu ñuy wax studio Ladiagne may profité ci occasion bi di leen nuyu xam nga. di nuyu artistes fa nekk yëpp di nuyu Père Laay Aada xam nga grand mot di nuyu express bi nga xamante ni bii xam nga man ak ñoom tey suñu relation dem na ba ay frère lañu quoi maa ngi di nuyu di nuyu gaa yëpp yi nga xamante ni bii dund naa ñoom lu naa ci game bi. loolu moo ma dugal ci musique passion la woon ma dem ba benn moment xam nga ma yëg ko di ko di ci gëstu di ci topp ba benn moment nag ci laa euh, yëg ne carrément am na luy nelaw loo xam ne bu ñu ko yeewee xam nga dina mën a jur dara quoi ci lañ lalu nag xam nga nekk ci projet bi di job quoi sama isilu musique nag mooy xam nga lu sénégalais rek. man moom à chaque fois su ma génnee rek xam nga dafa dafay sénégalais quoi. waaw maa ngi commencé comme li ma la wax léegi nii Isu Jolla Jaañ fa laa démarré sama carrière nekk fa di job ci ko loolu mu ngi nekk 2015 2016 2017 ci laa commencé di def ay euh, maquette ndànk-ndànk di di rëppatal ci raison yi nag tampi nag te raison yu bëri boo nee tampi ñu ne la magum bërëb quoi parce que jaar naa ci raison yu bëree bëri macha allah xam nga. Euh, tur bi euh, mu ngi daw foofu ndànk-ndànk xam nga ci laa ne nag comme que yàlla def na instant bi nii am na am na benn kii boo xam ne joob nañ ko ci côté boobu noonu il est temps que nag léegi nag ñu doxuñu nag joob génne affaire yi nag parce que instant bii gis nañ ne dara mu ngi fi quoi. loolu moom li ko indi mooy single bi ñu génne rek dañu génne benn single single bi actuellement disponible na ci rajo yi bi mu dawee ci benn station rajo tombeek moom mu nekk ci déglu ko. affaire bi neex ko ci la ci la lijjën sama numéro woo ma xam nga bi ma woowee ne ma carrément gis naa liggéey bi mu ngi rafet ne ma bu sañoon nga ñëw bokk sama album xam nga man ma di ko rafetlu trop parce que yamul ci loolu quoi daf ma def comme doomam ji mu jur xam nga di ma woo di ma encouragé ci lu bëree bëri ma koy nuyu lu bëree bëri xam nga nekk na loo xam ne ni lu ma motiver la lu ma lu ma yokk doole la parce que xam naa ne dara mu ngi fi ko parce que ku pertion bu demee ba déglu dara rek xam nga apprécier loolu rek boo góorgóorloo war nga mën am dara quoi. waa demi finale seen petit gàlle li ko indi mooy man dama nekk di job xam nga euh, may profité ci occasion bi di wax ñi nga xamante ni bii yàlla boole na ma ak ñoom may bàyyi xel partout dans le xam nga di ma encouragé ne leen maa ngi job quoi actuellement maa ngi studio maa ngi enregistré affaire ànd ci ak sama grand sama xarit Kalz xam nga. bu RFM ma koy nuyu grand maa ngi lay ziar xam nga di ziare grand Paco Olibi yéen maa ngi leen di béggee lu bari bari ak staff tampi magum bërëb yëpp loolu parce que xam nga. job moom da ngay nekk ci côté bi am ñu nekk ci côté bee quoi euh, jobu staff la xam nga man damay xëy rek ñu ne ma tey war nga def lii war a war nga jouer fii wala war nga lii ma leen ci euh, sant bu baax a baax di leen xamal ne mu ngi nice quoi waaw promotion single bi nag actuellement ñu ngi ci quoi parce que nii nii nii ñu ngi tourner vidéo bi xam naa ne euh, dina génn yàggatul dara dara dara Capello moo ko tourné xam nga dañu bàyyi juste màggal gi jàll bu soobee yàlla xam naa ñu génne ko après singal bi dina gën a ci net bi mu ngi commencé daw ci rajo yi actuellement ak whatsapp yi mu ngi dem bu baax a baax macha allah am na sax ay booy yoo xamante ni bi ñu ngi koy jël am na sax récemment benn booy boo xam ne bi muy def composition euh, seen école mu ngi mu ngi mu ngi récité bi quoi mu ngi récité bi seen seen biir classe nekk affaire bu ma bu ma bu ma bu ma parce que seen maîtresse moo ko moo ko filmé xam nga envoyé ko yaayam yaayam envoyé ma ko loolu noonu ma may xam ne kon job bi macha ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax may wax ne nañ gën a bàyyi xel parce que projet bi ma nekk di ko joob nii xam nga projet am doole la te am nañ ci yaakaar ne bu génne daal xam nga dina neex sénégalais parce que seen yëf la quoi waaw maa ngi ci gis sama bopp nag parce que yàgguma ci quoi yàgguma ci mais yàlla mu ciy dimbale ba tey am na am na euh, tur bi mu ngi daw ñu ngi may woowee fu nekk xam nga ba pare macha allah damay gis ne affaire bi mu ngi am tànki kanam quoi may ñaan yàlla yàlla yàlla xeeb doole xam nga maa ngi ci gis avancement bu baax wax dëgg yàlla. waaw samay projet nag actuellement bari na quoi samay projet ci musique bari na parce que man dama ñëw pour pour teg loo xamante ni mën naa ne. du ma ne amu fi mais bu fi amee tamit rare na ko wala wala c'est rare ñu koy gis ci rap galsen xam nga loolu laa ñëw pour teg loolu nag li li mu ëmb bari na ko li mu ëmb bari na mais actuellement daal ñu ngi ci singal bi nga xam ne mooy baak pour sénégalais yi bàyyi ko xel xam nga accepté ko parce que ku ko déglu rek di nga ci gis loo xamante ni bii xam nga dina tax yow di nga gën a bàyyi xel projet bi di nga gën a bàyyi xel tampi magum bërëb waaw sama dernier moom sant gaa yëpp di sant sama waa koñ sama mère sama famille yëpp képp koo xam ne yaa ngi bëggee tampi maa ngi lay nuyu di la ziar di la xamal ne xam nga connecté affaire bi ñu ngi ci ñu ngi joob ñu ngi ci joobi mu ngi dóob affaire yi ñu ngi ci kawam bu baax a baax a baax di joob di la sant tamit yow di sant ñëpp ah ñoo xam ne ñu ngi may bàyyi xel di ma bëggee. diikum daakum foog ma falaay lu juddoo ci tàgg naaw level yi yéeg ni vol ci kaw xam nga ne ren du daaw ki naan man laa kiñ ne yow la xam nga du benn waay xeetu jàpp ci bii game duma ci kenn waay. dama na jass seni may nga gis seni fay bu goma hey tel sa pos rabbi dina ma fay loxoy loxo ci kaw yalla ko dogal ma fete la kaw muno ci dara de rawna la faw ku bot buki la xaji di mbaw da ngeen di reeve don kanate te kaana yi gëmuñu geng sa laa riyal laa moom laay dewaale da ngay sisu xalé yi bëgg ma duma la faalé way tampi la tudd somay may der rewalé way loxoy loxo ci kaw ci kaw geng sa loxo yi loxo ci kaw ci kaw tampil law ba faw tëkkuma sóoru ma niga ma bala fi junju mi rëkk na neex na ci wolof yi tampile tampile tàccu ma néga tëggal ma galan bi tuq si ngalam ma raatale gem ba génn ci ngalam ànd yi bari na waaye de bokkuñu gang be ngi yokku mais cunne de toppuñu teewal xaalis man xaalis de jënduma yàqate gem bi ci ma maanee ngi nangu te gelee ngi nëw tampi du soobu di dellu ginnaaw jobbi de tarkaala day gën a law loxo yi loxo ci kaw ci kaw geng baa ngi nii loxo yi loxo ci kaw ci kaw tampi law ba faw maa ngi leen di ziar di leen béggee tampi la magum bërëb de la selirixis